أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi ci tomb bu mujj ci dars yonent yàlla saalix alayhi salaatu wassalaam te mooy ad duruus al mustafaada min al qissa li tàmbalee ci dund yonent yàlla saalix fi ko yàlla yónnee ba keroog mission bi di jeex suñ koy tënk njëriñ yiñ ciy jëlee juróom-ñaari tomb la tomb bu ci njëkk mooy ann al muslim la budda an yactabira mimma hadas jullit bi il faut muy xelu ci xew-xew yi xew ci àdduna jullit foog mu ciy xelu foog mu ciy waaru foog mu ciy jàng foog mu ciy bàyyi xel jullit laa wax jullit xew-xew yi xew ci àdduna bi foog jullit di ci jàng waaye foog mu ciy waaroo foog mu ciy xelu li gën a garaaw mooy mbir xew rek mu daal di romb yow jële woo ci dara ndax yàlla du def dara pour hasard lépp lu am rek dafa am lu tax mu amal ko loolu moo tax mboolem xew-xew bu xew ci àdduna su fekkee jullit ñi bëgg nañ cee jëriñu mooy ñu jàng ci fa yakunu zalika sababan fa yakunu zalik sabab li istiqaama li istiqaamati ala amrillah jàng boobu jullit di jàng ci xew-xew yi xew ci àddina bi lan la koy jural mooy day tax mu sax jub xoj ci santaane yàlla tabaraka wa taala alhamdulillah faqad raayna kayfa anna qawmu thamud lam yactabiru bima hadas li qawmi aad fa halaku kama halakat qawmu aad ñun ñëpp ànd nañ gis ne nitu saalix yi ba ñu bañee jàng ca la xew ci qawmu aad ñu bañ cee jàng bañ cee jële dara lan moo leen dal mooy ñi alku ni waa qawmu aat alko moo tax dañuy wax histoire lan lay jëriñ mooy rabtul maadi min al xaadir wal xaadir lil mustaqbal da ngay jël démb nga yeew ko ci tey nga jël tey yeew ko pour suba soo bëggee dund tey da ngay xool li passé woon démb ñi moyoon yàlla yëpp booy jàng seen histoire bi yàlla yónnee aadama ak léegi ñi musoon mooy yàlla yëpp ana fu ñu mujj borom bi tabaraka wa taala daf ñuy tënkal ci alquran alam tara kayfa faala rabbuka abadan bi aad da ngeen defe ne lu weex loo gis rek fëriñ la déedéet alam tara kayfa faala rabbuka rek ngeen bëgg a jubal fee bi aad nag maa bañ bi aad xool leen waa aad nan laa leen def irama zaati limaad allati lam yuxlaq misluha ñooñu passé yàlla mu ne wa samuud allazina jaabu saxra bilwaad ñooñu passé mu ne wa firawna zil awtaad ñoo ñëpp yàlla da leen a mbugal ñoom ñëpp yàlla bàyyiwu ci kenn ñëpp la yàlla mbugal léegi nag ñun buñ ñëwee ba jamono bii alhamdulilah axfirallahu lana wa lakum ñu war a jàng ñi moyoon yàlla yàlla mbugal leen kon ñun lan lañ war lan lañ ci war a jëlee mooy ñu moytandiku balaa ñuy mooy yàlla yàlla dinu alak ndax ñii xawmu saalix ñoom day waa aad dañ leen a jege woon ndax dañoo alak nitu saalix rek nitu aad rek waa saalix ñëw kon ñoom waroon nañoo jàng bu baax a baax ne bu ñu moyee saalix yàlla alak leen waaye nag ndeysaan jëlewuñ ci dara jëlewuñ ci dara moo tax fu ñu mujj mooy yàlla alak leen loolu mooy tomb bu njëkk ñaareel bi mooy anna shukru yajlibul mazid sant day tax yàlla dolli ku sant yàlla dolli la ku sant yàlla yàlla dolli la waa saalix rek dañoo santul yàlla falaw shakara qawmu samud rabbahum jalla wa ala ala ni'amihi allati an'ama biha alayhim لكان ذلك سببا لسعادتهم ولكنهم كفروا بالله وجحدوا نعمه فاستحقوا العذاب nitu saalix yi yàlla da leen may xéewal gu rëy dañoo laaj kéemtaan yàlla yónni yonent bi yonent bi indi kéemtaan ci ñoom mu leer naññ mu ñu taxaw ni di ko gis ñu ne leen kéemtaan gi kat comme yéen a ko laaj nangam ak nangam la ci yàlla wax lan moo leen waral mooy ñu sant yàlla ci kiimtaan gi yàlla bu la defalee dara da nga koy sant yàlla may na la wér gu yaram may santal yàlla yàlla may na la ngay dégg sant ko dañu gis benn waaye boo xam ne ndeysaan amul loxo amul tànk mu naan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah benn waaye ne ko yow yow lay sant yàlla mu ne bu ko neexoon mu jël làmmiñ bi jëlu ko moo tax mu koy sant comme tànk yeeg loxo yi la jël bàyyi na fi làmmiñ bi kon yeeyoon nañu sant ko kon yow mi nga xam ne yaaw yaa ngi yor tànk yor loxo ba pare boole ci gémmiñ gi yow lu la war kon kon ki dara manquéwul ci ay cëram lu ko war julli yi nag tey toll nañ foo xam ne jàpp nañ ne bu ñu xëyee amuñu dépasse rek adduna bi day tukki yow mi wër dépasse jàppal ne am na ku nekk ci morgue bi kooku talul wër dépasse yow mi wër dépasse am na ku nekk ci morgue bi kooku bu ñu ko ne woon nga ñàkk dépasse tey ak nga dee lu muy tànn ni ngeen defe de bu malaaka bi taxawoon ne ko nga ñàkk dépasse tey ak nga dee tey tànnal benn waa jooju lu muy tànn mbokk yi ñàkk dépasse de ah allahu akbar kon looy xeeb rek sa morom mi ngi ne seew jot ci looy xeeb sa morom mu ngi ko bëgg a jot bu kenn ci ñun jàpp ne yàlla defalu ko dara ah kay moo tax yàlla ne wa amma bi ni'mati rabbik haddis xéewal yi leen yàlla defal dee leen ko sant kon waa samud suñu santoon yàlla yàlla bàyyeel leen ay xéewal waaye dañoo weddi yàlla dañoo weddi xéewal yi leen yàlla defal bu ñu santoon yàlla yàlla yokkal leen xéewal ñu texe waaye dañoo weddi dëgër bopp fetteerlu moo tax yàlla mbugal leen ñetteel mooy ann aksarul umam al kafara rafadat qubul al xaq li annahum kaanu yatamassakuna bi diini al aba wal ajdad walaw kaanu ala shirki wal kufri mbokk yi ñetteelu tomb tomb bu garaaw a ngi nii li ëpp ci xeet yi yàlla alakoon démb ñu nekk ay yéefér lan moo tax yàlla alak leen mooy rafadat qubulul xaq dañoo bañ a nangu dëgg jël ko nga yóbbu ko dañoo bañ dëgg yàlla alak leen kon ku bañ dëgg rek yàlla dalay alak ak koo mun doon dëgg yàlla amu ci mbokk est-ce que d'accord ngeen loolu dëgg yàlla amu ci mbokk amu ci xarit soo nekkoon doomu yonent it boo bañee dëgg mu alag la ana doomu nuux yàlla alag na ko ana jabaru nuux yàlla alag na ko ana jabaru luut yàlla alag na ko ana bàyyi ibrahim yàlla alag na ko kon ku bañ dëgg rek yàlla alag la dëgg yàllaa ko moom moo tax nit warul bañ dëgg xeet yi ëpp nag démb yi paase woon yépp dañoo bañ dëgg yàlla alag leen lu taxoon ñu bañ dëgg mooy kaanu yatamassakuna bi diinil aba seen i diiney bàyyi leen jàppoon seen i diiney bàyyi day de ko ne ñun kay li mag ñi nekkoon ci la ñuy dee waaw ñun li suñu bàyyi nekkoon ñun li ñu fekk dëkk bi di def ñun loolu la ñuy def loolu ñaata yoon nga koy dégg ci Sénégal dama leen di laaj ñaata yoon ngeen di dégg ku naan man li ma fi fekk ci laay dee te sax bu fekkoon ne li nga fi fekk dëgg la sax nga d'accord cee dee te ci sunu dund lépp lu ñu fi fekkoon mag ñi def ko dindi nañ ko ku fi fekkoon sa papa dëkk ci néegu ñax def nga ko ardoise bi la yàlla mayee bi nga ñëwee loo ko def immeuble ku fekkoon sa papa di war mbaam bi nga ñëwee 4-4 nga indi pasero alaysa kazalik ku fekkoon seen waa kër ñuy reere fonde tey lu ñuy reere ndambe alaysa kazalik kon bu kenn wax ne man li ma fekk waa dëkk bi di def lool laay def inna wajadna aba ana ala umma déedéet yàlla woo la nga xool waa dëkk bi yàlla yonent bi la la xool loo waa dëkk bi génn waa li ñuy def ay aada la ay bidaa la ay shirk la kon yow waroo def lool nit du dee ci li mu fekk ay baayam ak ay maamam di ko def ginnaaw ba nga ne man jullit laa da nga war a bàyyi li bàyyi ak maam yi nekkoon nga nekk ci li lislaam wax jeex na tax nee na xeet yu njëkk yi bokk na ci li leen alak dañoo bañoon dëgg mooy ca seeni baay lañu nekkoon ak seeni maam tey bokk na ci nit ku bañ a nangu dëgg soo ko ne lii la yonent bi wax mu ne man sama papa ak sama yaay lenn misaal rek day fekk benn xale bu jigéen bi def bopp neen nga ne ko yow lu tax doo muur sabab bi mu ne la ñun xamuñu loolu ñun sunuy maam ak si man sama yaay ak sunu ñun ñëpp ñun bopp neen lañ xam léegi est-ce que bopp neen mooy dëgg kon wala nga gis benn benn benn ku ku góor ak ku jigéen kuy joxante loxo nga ne ko déet lii dañ ko araaban mu ne la xoolal lii mag ñi sax dañ ko doon def léegi lan mooy dëgg li mag ñi def mooy dëgg wala li yàlla wax mooy dëgg kon kenn du topp ay diiney maam ak ay diine baay beneen mooy léeg-léeg ñu ne la li mag ñi nekkoon waa mag ñi ak saxaaba yi ku mag ndax am na mag bu mag yonent bi est-ce que am na mag bu mag saxaaba yi yaakaar naa ku fi am mag saxaaba yee ko mag wala di ngeen am mag yu mag saxaaba yi jeex na mag yépp saxaaba yee leen mag bi gën a garaaw nag mooy yàlla dene laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yonent bi dong ngeen am droit toppandoo amul keneen kon kenn du wax ne li fi bàyyi bàyyi woon rawatina nag loolu bu fekkee bidaa la wala shirk la walaw kaanu ala shirk wal kufr man de sama ndey ak suñu sama bàyyi li ñu doon def loolu laay def même bu dee bokkaale ak kéefir da nga koy def tey loolu moo fi indi dëj wala dëj ku dee Sénégal foog ñu reyal la nag da ngay dégg ñu ne foog ñu reyal kon nag te xam ngeen ne dee rey amu ci ni Sénégal xool te li garaaw mooy dañuy rangalati cin yi nga dégg ñu naan sa dëj bii 14 cin fekke naa dëj boo xam ne xam ngeen lu tax ma ñibbi dañu ne si waa ji ku bëggoon ku bëggoon musique la samedi na ñëpp baali ma ne nañ jël suñu daal la ñibbi man ak ki ma àndaloon ma ne ko nan ñibbi ku bëggoon musique la na ñëpp baali waaw Sacré Cœur 3 ku bëggoon musique la na ñëpp baali samedi te Sénégal fi ñu toll ah da ngay dégg ñu ne ku ne sama pap sound rek la gëmoon il faut ñu defal ko benn soirée fàttaliku parce que vrai musicien la woon déggu leen loolu am na yaakaar naa benn soirée xaw ma bu ñu war a organiser fii pour benn musicien bu dee woon wala di ko fàttaliku mais ay bàkkaar ndax dinañ ci fàttaliku ku dee ndeysaan waaye nag loolu bu ci kenn yéemu de kamaatu diinu li nga leble lan lay fay ci lu bon ci lu bon nga nekkoon lu bon lan lay defal yàlla du yàlla wax naa leen yàlla def dara hasard yow da ngaa dund ci musique ba dee mais loolu loolu kay munoo dee kay ñu ne ñu ne yow nañ la organiser ay ñaan yu baax mais foog ñu organiser la lu bon li nga doon def ci làmb nga dee mais foog ñu organiser la benn combat te xoolal loolu waykat waxuma waykat waykat yi lan lañ leen di organiser soirée ñi doon rapporter làmb lan lañ leen di organiser combat tuddee leen ko bi mooy drapeau diw dee na mais il faut ñu fàttalik ko gis nga nga nekk sa biir bàmmeel yàlla branché la jahannama ñu lay caw nga naan yàlla waaw lii fu ma ko jëlee ñu ne la yàlla mu ne la lu bon li nga doon def gaa yi ñoo lay fàttali ko kamaatu diinu tu daanu ixwaan yi amma al muslim bu fekkee jullit la fala yattabiu illa rajulan wahid wa huwa rasulullahi muhammad ibn abdullah bu dee ab jullit moom benn nit rek lay topp benn nit gis nga jullit benn nit la am droit topp ci kaw suuf jullit laa wax jullit benn nit nga am droit topp mooy yonent bi alxuraan lan la wax atiu llaha wa atiu man abaakum ajdaadakum ah suyuuxakum ñan topp leen yàlla ak kan wala loolu du alxuraan atiu llah atiu rasul ñaata aaya la ci alxuraan fanweer ak ñett atiu llah wa atiu rasul ñun ñu lànk koo gis am na ko muy topp léegi sax moom toppatuñu ñu baax ñi mbër yi la ñuy topp su mbër bi solee mbax ne ñu sol mbax ne bu simmee ñu simmi waaw bisa ngi ñëw ngeen gis dëkk bi yëpp ngemb di dox nga gis paa bu ngemb liggéey yi c'est parce que ki mu faral day ngemb mu ngemb bu leen ko weddi de bisa ngi ñëw ñun ngemb ñëw jàkk julli si de bu leen ko weddi de bu leen ko weddi de comme dañuy roy rek ah xale yu góor yi bu ñu gisee américains yi di takk tubé yi si seen xottu taat nu ñu def nan lañ def du dañ koo def waaw li indi lee mënut a indi lii xale jigéen yi bu ñu gisee tubaab bi ak nasaraan yi futteeku def yaramu neen lan lañ def futteeku wuñ futteeku nañu wala futteekuñ kon bu leen ma bu ma leen wax ne bisa ngi ñëw ngeen gis fii dëkk bi ñi ñi di ngeen ngeen di ree li indilee moo indi lii xanaa gisu leen léegi lu ngeen gis ci télé bi rek ak nit ñi di ko def rek suba bu ngeen xëyee suba gis nit ñi di ko def gisu leen lool seetlu leen ko yéen xalaatoon ngeen Sénégal ñu dem ba góor ak góor di fi sëy xalaatoon ngeen lool ci àdduna yéen loolu gisoon xalaatoon ngeen lool seen jamono bi ngeen ko doon dégg jamono bi ngeen ko daan dégg bu njëkk bu li ngeen doon wax di ngeen daan wax inna non loolu mënul nekk mënul nekk léegi nag loolu gis ngeen ko Sénégal loolu gis leen ko Sénégal sax waxuma am na fi mais léegi Sénégal dañoo reconnaître dañoo nangu ne góor ak góor war na noo mën a sëy dañ koo nangu noonu danoo bokk ci dëkk yi ko nangu dañ cee bokk kon nag da ngeen def attention jullit moom kenn rek lay topp mooy Muhammad ibnu Abdallah sallallahu alayhi wa sallam ñeenteelu tomb anna aadaau diin ida lam yajidu indahum hujja yarudduuna biha ala ahli lxaq laja'u ila al ittihamat assaaza alkaziba ndeysaan gis ngeen noonu yàlla yi bu ñu amul lenn luñ la tuumaal lu ñu yàqe sa der luñ ko tilimale luñ la taqale dañuy làqatu ci ay tuuma tuuma yoo xam ne ay fen rek gis nga firaw Moussa bi mu ñëwee ci firawna ne ko bàyyil banu Israël yi nga def jaamu nañ jaamu ja lan la wax yée kii daa ñëw pour nangu dëkk bi gis nga tey loolu la ñuy wax booy waaraatee nii rek ñu ne ñi ay islamiste lañ dañu bëgg islamiser réew mi wala ñu ne ay terroriste lañ wala ñu ne ay fondamentaliste lañ gis nga ay ticket yonent bi yàlla bi leen yàlla yónnee ñoom ñoom ñu ñëw di wax xam nga ñi ñu fa fekk bandi yi lu ñu doon wax ñii dañoo ñëw pour génne leen ci kaw suuf si dañoo ñëw pour nangu leen dañoo ñëw pour nangam ak nangam na ngeen leen mooy tëndiku xoolal nu lan la gaa yi waxoon kii bu ngeen ko toppee yéen ñëpp di ngeen alku la tazaruna alihatakum wala tazaruna wuddan wala suwaan wala yaxuusa wa yaxuuqa wa nashra bu leen bàyyi kan mooy leen mu dëgër ñun ci lii la ñuy dee yenn saa yi sax nga dégg ku yuuxu mbëkk tabax bi ngir loolu ndeysaan suñ leen di nettali démb dafa mel ne comme tey xam nga lu ko waral mooy bi nit ñi benn lañ rek sëti ñii ñoo nekk fële seen maam yi ñoo nekkoon fële rek ñi la ñooy maam yi ñii ñooy sët yi chaque jour ci àdduna yonent wala ku baax ku mus a wax gaa yi xam ne li nga wax dëgg la léegi ñu commencé di leen tuumaal jàkka ji na ngeen fay moytandiku julli de parce que ñoom ay ay kii lañ waaw ay kii kii kii nga gis gaa yi di romb kenn di julli ah yow gis naa la nga taxaw di wax ak gaa yi mooy moytandikul de est-ce que bu leen déglu yow fee nga demoon sànq loo fa doon def ah ma doon waxtaan waxtaanu diine yi hii wóorul bul dem gis nga léegi yow loolu ngay wax foo ko teg loolu ngay wax nit ñi buñ déglu foo ko teg ay tuuma yoo xam te woo ko fet benn xa- benn waaye dafa nekk ci grand place damier ay xale jigéen muuru romb ko di jàngi kenn ci ñoom di doon demee si gi daal ne ñii ni ñu bonee ñu gën a bon ci àddina bi keneen ki ne ko ah pourtant ñii duñ jox loxo góor de mu ne ah loolu kay xel xalaatu ko mu ne gis nga ñi buñ dendee ak góor oto sax dañuy am problème lu nekk mu wax ko mu ne lu mu ko wax lu baax rek mu ne huu ñi kay pourtant dégg naa nag mu ne mu ne waaye lu tax sax nga ne dañoo mën ma damaa dégg nit ñi di ko wax voilà point point point da ngay gis kenn benn xale benn xale bu jigéen bu muuru kenn ñëw ne la yow gis nga yow lii ngay def sunuy maam ah kenn mus ko def yow dong nga bu ko def ci kër gi ñun ñun nangam lañ duñ def lii léegi dañu bëgg a wax ne léegi sëriñ boobu ñu ñuy wootewu ne nangam la bu ñëwoon àdduna ñan lay àndal borom mees yi nekk fii ak ñi xeesal ñi sol mini yi mun nañu muur ñi yéen yéen samay noon ngeen na leen wax dëgg tey boo jëloon El Hadji Malick wala nga jël El Hadji Omar wala nga jël Cheikh Ahmad Bamba kenn ci ñoom bu dee woon cëpp Sénégal tey ñan lay àndal ñu meesu ñi ñi xeesal ñi ñi kiris karas mbër yi ah ñi tëgg soirée yi gis nga Sénégal ba ñu naree bon dañoo wutal sëriñ ay woykat dañoo wutal sëriñ Touba benn kinne dudee ko kinne maam Bamba muy way ñu ñëpp ñëpp ne dagan na ñu tal alaaji Malick jaal ñu ne jaal monsieur As ñu tal sëñ Fàllu Ndongo ku nekk ñu tal benn waykat ngay way ñu ne ñëpp ne dagan na bu fekkee du dëgg da ngeen ne du dëgg sëriñ yi ku nekk am nga benn waykat bu lay way léegi nag loola tax na way dagana tax na musique dagan de parce que way dañ ñooñu ah rek kon dagan na de ah bu ñu woyoon ki gën ci mbindeef yi sax tagul mu dagan muy muhammad bu ñu woyoon yàlla borom jaam ñi sax taxul mu dagan kon bu nax suñu bopp dañuy sonn rek jullit daal mooy koo xam ne dëgg rek moo koy tax a jóg ba mooy ñeenteelu tomb juróomeelu tomb mooy ann allaha aza wa jal يؤيد رسله بالمعجزات ليثبتهم على الحق ويكبت أعداءهم yàlla tabaraka wa taala day dimbali jamono yu nekk yonent yi ak nit ñu baax ñi yàlla da leen di dimbali lu buur buur bandi bandi lu kàccoor am doole am doole boo dajeeg yonent yàlla wala waayu yàlla mu daaneel la ci suuf ak yow loo am ay arme lu mu bari bari bari bari kon dëgg rek mooy dëgg yàlla wan nañu ko ay misaal ci quran soo gisee yéeféeri googu ñuy jàng alquran fexe ba julli nit dummuy alquran mooy boo jàngee alquran da ngay nitee da ngay nekk nit boo jàngee alquran li ngay njëkk yëg mooy yow amul kenn ku am doole ku la munal dara ah xoola yonent yi ak buur yi ñu doon dajal xoola firawna kan la dajaloon Muusa kan moo ëppoon jamono yooyu firawna doole kii ne woon ne ana rabbukumul aala ibrahima kan la dajaloon namruud ki ne woon damay rey yàlla waaw waaye buur yooyu yépp li ñuy am doole am doole bañ dajeeg yonent yi fan lañ mujj mooy yonent yi daaneel leen ci suuf est-ce que yonent yi dañoo yoroon ay bomb dañoo yoroon ay ay hélicoptère ay Cobra dañoo yoroon ay kënu dañoo yoroon ay bombe atomique dëgg rek lañ yoroon dëgg dëgg mboolem nit yàlla yi tamit noonu la ba ñu ñëwee ci jamono ñi leen doon xeex yépp ba ñu dajeek ñoom daaneel nañ leen ci suuf ba démb ba tey loolu rek moo am dëgg ak fen saa yi ñu dajee rek dëgg mooy nekk kaw waaye fen nag yor na ay façon façon ay yëngatoom ay grimaasam ay xoqatalam ay ay ba yenn saa yi boo ko séenee da ngay tiit ndax da ngay ragal waaye bis boo xamee ne lii du dara benn waaye dafa dem Inde mu ànd ak ay nit ñu nekk ci lëndëm gi di ba càgg rek ñu gis safara di fee ñu naan tëj ñëpp daw moom mu taxaw safara bi tàkk fay dem ba ci kaw asamaan wàccaat dem càmmoñ day nday dem day joor mu taxaw rek di ko xool yëf yi daal dem ñëwaatul mu ñibbi fekk gaa yi ku nekk di ñu ngi xalaat ne waa ji moom dee na wala dof na wala jommi na mu yëg si jàpp julli ñaar raaka toog gaa yi ñëw wër ko ne ko yow lu tax dawoo mu ne damaa bëggoon mu wax rek ma ne ko ragalal yàlla mu wax rek laa doon xaar mu wax ma ne ko ragalal yàlla gis nga kon jullit boo ànd ak yàlla doo tiit am na koo xam ne dafa nekk ci benn barab di jaamu yàlla bu jékki-jékki benn leer bu bula ñëw leer bu bula fees néeg bi leer bi jékki-jékki daal di verte jékki-jékki mu dégg baat da ko yow diw maay sa borom maay wax ak yow yëgal ne lépp lu ma la araamaloon démb tey jii daganal naa la ko yëkkati naa sa maqaama mun ngaa bàyyi sax julli mu ne ko yaa mën a fen leer gi daal di fay daal di dekk daal di saxaar dem mu toog ñaari minute benn waaye ñëw ndeysaan ñëw ci wetam toog nuyu ko ne ko salaamaaleykum mu ne ko waaleykum salaam mu ne ko waaye yow diw noo ma xàmmee man la seytaane noo ma xàmmee pourtant fii ma la jaar laa jaar gaa yu bari noo ma xàmmee noo xamee ne seytaane mooy wax ak yow mu ne ko parce que damaa jàpp ci alquran ak sunna foofu laa la xàmmee mu ne ko fan mu ne ko yàlla nee na maa yu baddalul qawlu la dayya li ma wax wax naa ko pare dootul changer julli leen julli leen yàlla doo wax tey julli leen soo mu ne bàyyi wàcce naa leen wàcce naa leen yéen kay léegi ak saa wàcce naa leen déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet yàlla wax na ko ba pare ah maa yu baddalul xawlu la dayya mu ne ko foofu laa la jàppee mu ne ko nag fii ma la jaar jaar naa fa ñu bari wala tey fii day gis ay mbër yuy gis yàlla ay mbër waxuma sax ay jullit mais ay mbër di gis yàlla boo xam ne day fekk ngay julli mu ne jarul ngay julli kaay ma def kaay ma fexe ngay yegg rek ngay yegg foo yegg fan ngay yegg fan kaay ma yeggal la kon dañ leen jàpp ci dëgg mbokk yi noonu yàlla yi yàlla tabaraka wa taala chaque jour da leen di daaneel mboolem yonent yi ak nit ñu baax ñi yàlla da leen di dimbali di leen jox ay kéemtaan ay mujiza ngir ñu mën a sax ci dëgg waaye kàccoor yàlla da leen di daaneel rek ak seeni doole seeni pouvoir lu mu bari bari yàlla da leen di daaneel juróom-benneelu mbokk yi ci kéemtaan yi ñuy jëlee wala njëriñ yi ñuy jëlee ci histoire yonent yàlla luut yo saalix mooy anna dall alal xayri ka failihi tegtale lu baax kuy tegtale lu baax mu ngi mel ne yaa ngi koy def kuy jàngale lu baax yaa ngi ñi koy def yéene yem tegtale lu baax képp kuy digal nit ñi lu baax su ko nit ñi defee yaa ngi koy def al al man dalla alal xayr ka failihi kuy tegtale lu baax yaa ki ko defa yem te lu baax yàlla dafa bëgg ñu def ko moo tax mu ne fastabiqul xayraat njëkkante leen lu baax li yonent bi ne al xayru kasiir lu baax daa bëri lool waaye wa qalilun faa'iluhu ñi koy def danoo néew da ngeen wax bi de alxayru kathir lu baax daa bëri waaye ñu koy def ñoo tuuti xola sàng sa yaram jigéen ju sàng awraam baax na wala baaxul ñi koy def ak ñi ko dul def ñen ñu ëpp dem julli ji jàkk lu baax la wala baaxul wala ñu koy def dem stade ak dem jàkk lu gën fii ci mbooloo mi bu ñu ne woon kenn yàlla na nga dee stade lu muy wax mos billahi min gis nga yow yow de sama noon nga wala bu la waajoon yàlla na nga dee jàkka ja nag alhamdulilah rabbi jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf yàlla na la yàlla yow ku baax nga gis nga bu la benn waaye noonu yàlla na nga dee baar ba nag la yor gis nga lu baax daa bëri mais nit ñi duñ ko def lu bon nag moom rek la nit ñi bëgg kenn bëggul def lu baax moo tax mu ne kuy tegtale lu baax yaa ngi ñi koy def yéen a yem wa kazalika addal ala charr ka faili kuy tegtale lu bon yaa ngi ñi koy def benn ngeen allahu akbar xoole ki tëgg stade bi daal di tëgg benn soirée stade bi wala nga tëgg benn combat stade bi ñépp ñëw xam nga yan bàkkaar nga am li toll ni li fees stade bi bàkkaar yi toll noonu nga am man sanna fi lislaami sunnatan xasana wa man sanna fi lislaami sunnatan sayyaat képp ku woon nit ñi ci lu baax nit ñi ñëw teew boo tabaxee jàkk jàkk ji di fees dal nit ñi di julli si ku julli rek tiyaaba nombre nit ñi di nga koy am te ñoom seen tiyaaba du wàññeeku nga am seen tiyaaba am sa bos bu fekkee am stade la nga organiser fa làmb wala nga organiser soirée nga organiser fa dara wala sabar wala même bu dee ngénte nga def indi ay baaf musique ñépp ñëw bàkkaar bu fa am yow la ndeysaan gaa yi ñëw lekk sa ceeb lekk sa yàpp naan sa jus dem bàyyi la ak bàkkaar yi nga yenu ko nga dem tëdd di nelaw nag danañuy yenu ba fees yow nga ba pare nombre yi fa teew yow nga yenu ko léegi nag ñoom ñu ñibbi ñu bàyyi la ak bàkkaar yi nga defe ne tëdd nga nelaw jeex na yàlla mu ne la ahsaahu llahu wa nasu bind naa ko yow fàtte nga ko ndax yaa ngi nelaw nga dee yowmal xiyaam nag ñu ne ko fii lañ koy takk wa kullu insanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqi bi nga dee rek malaaka yi daal di koy yeew dugal ci biir bàmmeel bi bu gaa yi ñëwee dekkil la malaaka yi ne la iqra kitaabaka liiral sa téere li nga doon def wa kafa al yawma wa kafa bi nafsika al yawma te yaay atte sa bopp kenn du la atte yaay atte sa bopp ndeysaan nga ubbi téere bi commencé waaw le premier avril maa organisé woon benn xumbal ñu ne ah xanaa xamoon xumbal yàlla da ko araamal looy wax ndeysaan ndeysaan gis nga problème koy woo ana avocat yi ngay woo pour ñu lay la keroog ana nit ñi doon lekk say lekk bi nit ñi nga woowoon ñu ñëw ne leen kaay leen mooy yàlla ana kuy ñëw fekk la foofu gis nga malaaka yi bu ñu la waxee dañ naan la iqra fii lu amrin kitaabaka xoolal ka damir bi benn nit la iqra anta damir mustatir iqra jàngal kitaabaka sa livre bi sa téere bi li nga doon liggéey dossier baa ngi ni jàngal tey yow mii xoolal waxuñu nit ñi de yow mii ñu ne ñu ne yaay atte sa bopp kenn du la atte kenn du fi ñëw ne la yow yaa defoon yaa defoon déedéet yow yaay waxal sa bopp maa defoon alyawma naxtimu ala afwahim yàlla leen damay tëj gémmiñ gi loxo mu ne ana lil xaraami lamastu li araamoon man mi maa ko laal tànk ne ana lil xaraami mashaytu fi araamoon man mi maa fa doon dem bët ne ana lil xaraami nazartu li araamoon maa ko xool nopp ne ana lil xaraami samitu li araamoon maa ko dégg gémmiñ ne ana lil xaraami akaltu li araamoon maa ko doon lekk malaaka bi nekk ndeyjoor ne ana katabtu malaaka bi nekk càmmoñ ne ana shahadtu maa ko fekke woon yàlla mu ne laqad araftu wa shatart xamoon naa ko ma nëbbal ko ko waaye tey laqad istadda gadabi ala man qalla xayaauhu alayya tey sama mer dina nekk ci képp koo xamante ne danga maa ñàkke woon kersa rus nit ñi ñàkke ma kersa xam nga tey nit ñi loolu lañ def dañoo rus nit ñi ñàkke yàlla kersa da ngay gis koo xam ne tey ni fi mu toog nii dafa normal mais bu génnee fii rek wala sax mu dugg biir néegam moom kenn rek dugal benn cassette commencé moom dong ci biir néeg bi jongur jongur moom kenn parce que te bu mu nekkoon ci biir nit ñi du ko def parce que moom kenn moo fa nekk ana yàlla ah da ngeen a fàtte ne fu ngeen nekk huwa maakum ayna ma kuntum rus yàlla ñàkke ñàkk ker rus nit ñi ñàkke kersa yàlla yàlla wax na ci beneen aaya yastaxfuna min annas wala yastaxfuna min allah wa maahum wala loolu du aaya dañ leen delloo wax suñu xel bu na àdduna jay de xumb-xumb yi ñuy gis fii jaagar-jaagar yi dem dikk dugg ak génn gii wéyut de léegi ñu dugal la ci morgue bi sa mbir leer dund bàmmeel ak dund àdduna du benn dafa wute de yi ngeen di gis nii eggul bàmmeel yii fii la yem protocole yi fii la yem amul benn njëriñ dañ leen góorgóorlu suñu bopp juróom-benneel wala juróom-ñaareel ci juróom-benneel bi ba tey fi muy jàngale ne ku def lu baax da ngay am tiyaaba ñi ko def ku def lu bon da ngay am bakkaar ñi ko def mu ne fa man dallahum ala qatli naaqa wa man radiya bi qatliha musharikun lahum fil jarima gis nga lu bon ki ko digle ak ñi gis ñuy def lu bon li nu noppi ñoom ñëpp a yem ñëpp la yàlla di alak banu israil keroog ba yàlla tabaraka wa taala ne Muusa bu waa bani israila dem nappi nappi araam na ci ñoom samedi ñu daal di séddaliku juróom ñetti xaaj ñii dem nappi ñeneen ñi moo ne ah ah ñun de ñun de suñu yoon nekk dem leen rek ñun de suñu waaw bu ngeen demee bu ngeen ñëwee xaa ngeen may ñu ci rek waaye ñun duñ dem ñeneen ñi ne ñun ñun kay duñ du ngeen ñu fi fekkaar sax ragal leen yàlla bu leen dem moo tax li ma taizuna qawman allahu muhlikuhum lu tax ngeen di waar ay nit yoo xam ne yàlla da leen alak lan la ñu wax maaziratan ila allah ñun dañuy ñaan ngant yàlla saa yoo gisee lu bon noppi ci nga bokk bal sax yonent bi ne saakitu anil haq seytaanul agras ku gis dëgg noppi yow seytaane bu muuma nga seytaane bu muuma kon léegi Sénégal dañ leen jàng Sénégal kon kon léegi ñun ñi gis musiba bi dugg ci dëkk bi ñëpp noppi ñu gis góor jigéen yi gis jigéen ñi di sëy gis xale jigéen yi def yaramu neen gis xale yi góor yi def yaramu neen mbër yi fii léegi kilifa yooyu gis loolu yëpp noppi ñoom lan lan juróomi xalifa rek bu ñu woote woon réunion juróomi xalifa bu ñu woote woon réunion rek Sénégal jag juróomi kilifa diine rek bu ñu woote woon réunion rek woo gu- góor gi rek Sénégal jag juróom bu ñu ko woowoon rek ci benn jàkk ne ko nangam ak nangam lan bëgg soo ko deful ñu wax ak waa réew mi Sénégal jag wala wala d'accord ne li ma wax juróomi juróomi xalifa rek ci Sénégal suñu woote woon rek bëgg Sénégal jaar ci dëgg rek fii balaa gee ñaara kii nee na ñaar rek ñaar rek bu ñu woote woon rek Sénégal léegi mu jàkk Sénégal léegi mu baax waaye xoolal ñëpp a noppi mi ngi mel ne ndeysaan lu bon amu fi mu ngi mel ne ñun ñëpp ndeysaan àjjana lañ jëm moo tax ñuy responsabilité bu ñu yenu xamuñu ko wallahi responsabilité bu ñu yenu xamuñu ko wallahi li ñu yenu xamuñu ko wallahi li ñu yenu xamuñu ko ñii li ñu yenu la ilaha illa allah kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi xoolal nga jiite ay million ngi nit genn wàll gépp nar a dem safara nga toog rek di xoole te xam ngeen ne lii nu gis fii du ngeen mën a ñii àjjana lañ jëm lu ngeen baax baax baax soxoruma de dama leen di leeralal rek soxoruma dégg ngeen de soxoruma de dama leen di leeralal mbokk yi juróom-ñaareelu tomb te ci la ñuy jeexale mooy al aqibatu daiman takunu li ahli l imani wa taqwa mu jigi fu nu mën a nekk lu nu mën a def résultat bi ñi ragal yàlla ñooy mujje fu nu mën a nekk laa wax lu nu mën a def lu ñu mën a yëngatu mujj gi li ahlil imaani wa taqwa ñi ragal yàlla am imaan ñooy mujj mbir mi wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu li taqwa loolu yàlla moo ko wax mu ne faqad najallaahu ahla al iman wa ahlaka ahla shirki wal kuf wal kufraan yàlla musal na nitu dëgg ya falamma jaa amruna najjaynaa saalihan boo noonu la ko yàlla waxee ci aad noonu la ko yàlla waxee ci nuux ci huut noonu la ko yàlla waxee ci ñépp bi sama mbir dëkkee najjaynaa allazina amanu rek noonu la amee ci firawna noonu la amee ci yonent yàlla Muhammad keroog ca Badr noonu lay amee jamono bu nekk su mbiru yàlla dëkkee rek yàlla nee na najjaynaa allazina amanu ma musal ñi ma gëmoon kon ku yebba gëm yàlla su mbiru yàlla dikkee ah yàlla da lay musal noonu yàlla musale woon yeneen ñépp noonu la yàlla di musalee jamono bu nekk inna kazalika najzi inna kazalika najzil muhsinin bu leen yaakaar ne fële rek la ko yàlla defoon yàlla mënatu ko déedéet xoola inna kazalika najzil muhsinin teex na fii ba àddina bi di jeex xam nga li am solo yow kun minal muhsinin rek nekkal ci ñi rafetal rek nekkal ci ñi gëm yàlla su ndimbalu yàlla ñëwee yàlla boole la ci mbokk yi lii moo doon juróom-ñaareelu juróom-ñaari tomb yuñ doon jël ci histoire yonent yàlla saalix àllarba ak jàmm insha allah ñu ngi jël ibrahim xalilur rahman ibrahima sopp yàlla bi aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh